falaa taxlamu nafsun maa uxfiya lahum min xurati ahyunin jasaan bi ma kaanu yaxmaluun maa ngi lay fay Alaaji Saa Njoogu Mbeng di nuyu Cheikh Mouhamadul Muntaxa xalifa général de Mouride di nuyu seex Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke di nuyu Serigne Cheikh Ndiaye di nuyu Serigne Asfal Jëwrin di nuyu Serigne Abdou Samad ibnu Cheikh Sidil Mokhtar di nuyu Serigne Sidi Ahmed ibnu Cheikh Abdoul Aziz Bara di nuyu Serigne Jiili mu Serigne Sidi di nuyu Cheikh Abdourahmane Mbacke itam euh, ca ibnu Cheikh Abdoul Aziz nekk États-Unis ci jamono jii ñu nekk maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu Fallou Fall bu Bilbao di CP international maa ngi koy nuyu di nuyu Soxna Takko bu Paris ak euh, Xabaan di nuyu Liwisan ak ñoom Fofana ak waa Berlin yëpp di wax waa aleyka salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. yaay léegi ay Berlin. ay Paris ay kii lay luy ay Bilbao Cheikh baara dafa mel ni léegi déclenché na xam naa ni mi ngi préparé tournée américaine bi Cheikh Bara Ndiaye borom def gi <laughs> eh, Cheikh Bara fi ñuy démarré mooy démb dëkk bi riir na dëkk mi foor na bari na lool ku njëg ku njëg sëfaru taxi bi ñu war a jox trophée bi nag mooy ki jël ku cin la kubéeru cin la ko ca gannaaw di dawal oto dem kooku moom xam naa ne moom la war a jox li nga xamante ni bii moom la ñuy tuddee eh, kii bi mais nag am na ñoo xam ni génn nañ di wax ni waaw tëgg mi demee na noonu comme Benoît sàmm nee na waaye sax eh, ñu doon wax mag yi mag yi mag yi lañ àndal ci tëgg meeg yooyu mais noo jàngatee concert casserole bi nga xam ni Ousmane ko woote na ko ndax xalaatoon nga ni yëf yi ni mu demee démb doon na ko demee est-ce que xalaatoon nga loolu. waaw euh, li am solo mooy. Mhm. maanaam lu mat a jàngat la. ndax bu yàlla dogalee nga nekk ci am pénc mhm. di jàngat. boo gisee loo xamante ne ni askan wa dañ koo def te xamee woo leen ko woon dañ ko war a jàngat ndax lii du lu bees ci àdduna nag. Mhm. Euh, am na ñaari mi président yoo xam ne ca Argentine mas nañoo wàcc ci cause bu mel nii. mooy tëggal leen concert casserole euh, ci lañ seenu wàcc jaare boo demee ci Amérique latine ci dictature yi nga xam ne suñ masaan toog la ñuy fexe ba nga xam ne askan wa dootuñu leen may fu ñàkk seenu nakk mm-hmm. ba nga xam ne desewuñ lu dul seen i balcon ak buntu kër euh, ñu daal di dajaloo def lii ak lu mën a am nag mooy askan moom buñ dajaloo rek mm-hmm. maanaam euh, mooy loo xam ne kenn mënu koo faj mm-hmm. buñ nee place de l'obélisque ñenn ña dem ñenn ña toog sax dana am ñuñ ca rey buñ ne maanaam loolu lépp ay wax la dama Macky Sall boo gisee marché yi mu doon tere lépp mooy weddi gi ko askan wi weddi la bëggoon la bañoon maanaam am fenn fuñ ko mën a firndeele mhm. buñ tajee l'obélisque danañ ko firndeel wala buñ demee ci élection danañ ko firndeel fuñ mën a dem nag mu ngi daan kar li am démb nag mooy loo xam ne kenn mënu koo labaj kenn mënu koo sàcc ab préfet mënu ci dara mhm. ab gouverneur mënu ci dara kenn mënu ci dara mhm. parce que nag daanaka fa Amérique latine eggoon lañ yegg parce que bu fekkente ne léegi boo ñaanee ab ab ab euh, mars buñ la ko mayee boo fa jotee kàddu ñu ne li nga doon wax teggi na wut kuñ ci jàpp kuñ ciy bàyyi boo ñaanaatee marche ñu ne bul ko def boo ko forcé ñu fetal ci ay nit ñu dee mm-hmm. te ñu leen fetal buñ paree ay ay ay ay docteur ak ci gendarmerie ñooy dajaloo di bind ay ay yoo xam ne askan wépp xam nañ li amut ñu naan ay kii kii moom da doon taal pono dee kii ab paakaa ko rey kii lee ko rey loolu lépp nga xam ne maanaam wét rusuñu sax maanaam di fenn askan wi ñu koy xam mm-hmm. loolu foofu la Sénégal yegg si mm-hmm. mooy bu ñu marché bu ñu fa jëlee kàddu booy wax ñu ne li ngay wax teggiinuwul ñu rey la ñu ñu tëj la boo boo boo boo ñaan boo ñaanee mm, préfet préfet banque lànk te ay ñaan ak may wërta woon a am ci fii ci senegal mhm. préfet bañ soo ko forcé ñu génnee bal rayal yi fetal léegi nag suñ buntu kër yi ak balcon yi moo ñu dese kenn moomu ko. Mhm. waaw saa bu ñu neexee rek nañ fa taxaw fëgg. léegi nag lii am démb am na lu ñu ci mën a jàngate. mooy lan mooy buur ba dafa amoon euh, dëkk not ñépp benn jarbaatam ñëw ca dëkk ba moom xamul nu mu demee. su buur bi dee not kenn mu ko nawaal li ngay def nii di wax mu woo garde yi neen fexe leen ba rey ko ñu ne ko ah kii de sa sa jarbaata mu ne waaw sama jarbaata bëgg naa ko lool waaye ngànnaay li gën a rëy ci àdduna maanaam ngànnaay li gën a wóor ci àdduna mooy ñu ragal la mm-hmm. te kii dafay dindi ragal ki ma ragal maanaam takk der yi ak Macky Sall ngànnaay li ñu li ñu amoon mooy dañoo fexe woon ba nit ñi ragal leen. Mhm. ñuy ñuy caaxaan di caaxaan di caaxaan ba si ba Sonko dindi dindi dindi ragal ga nag. Mhm. fi ne maanaam bu ñu xasee ba ñeme la ngànnaay loo mën a yorati du du ngànnaay bu xasee ba ragal la boo yorul ngànnaay it yor nga ngànnaay ndax ragal nañ la ñoom nag ragal gi lañ dindi. Mhm. loolu moom moo ci am bu ko defee nag xam naa ne danaa wax président itam article quatre-vingt. waaw na ci dugal daagu fuñ la nobee ku ko waxati nga xam ne moom lay waxal waaw loolu moom ku ko waxati article quatre-vingt rek yaa ngi offensé chef waaw fii moom kenn nëbbatu ko fi ah? waaw bu fi daagoot kenn nëbbatu ko ci réew mi hmm. waaw fépp ci àdduna góor jigéen mag ndaw ñëpp a tëgg hmm. waaw daago fu ñu la nobee moom fu mu ko déggati wala kenn buggul ku ko waxati nañ ko dugal ci article quatre-vingt xam ne Macky Sall lay dégg <laughs> waaw moom nag. dama yaakaar ne bu ci buur yi kañ buur yi siin yi la bokk. buur siin buur Gédéeg buur siin yii Sall Ngari Lam mm. Tooro buur siin. am réew nag boo fa dëkkee aw askan dajaloo. Mm-hmm. kenn xamul la kenn gëmu la. askan wa mm-hmm. dajaloo ba jox la ba jox la doole xëyaat suba wan la ne bëggatul la. waaw boo leen boo boo boo boo boo leen delloowut seen moomi lit war ngaa dox doxinu kuñ bañ nag. Mm. mooy di dox ndànk di wax ndànk bu sob dat ba tee nga dem. dox ndànk waaw lii nag am ndimbal la ci moom. ndax bu mm. fekkoon ne bopp bi bopp bi am na lu muy xalaat it am pexe du yàqoo cim xel waaye war naa xam nit buy buy xalaat. Mhm. lu ko neex lay xalaat waaye buy jëf fu lu mën a def rek lay def. waaw noonu la demee léegi nag démb lii am. Mhm. am nañ ci njàngat. muy daan mooy dañu Ousmane Sonko dafa wax ne. Mhm. nañ tëgg ay bool. vingt heures ba vingt vingt heures cinq vingt heures zéro ba mu nekkoon waxtu woo xam ne nag ba jamonoy neex. waaw moom ci nii dañ daan tàng jër ba ku bëgg laal ci nit doo ko laal. waaw ba jamonoy neex. ci heure boobu la daa gën a jàpp. waaw mooy. heure boobu la paa bi sëlmal timis maire bi dekkal reer bi. Mhm. cere ñeexum cere ji bax wala mbaxal mi tàng. Ah, waaw booy lal ba sànq na mu tooy paa bi ñëw yor kurus gi tuuti ñu newaat allah kubar ci jàkka ji mu dem delsi mhm. boobu ay vingt heures trente ñu daan ne yekk leen reer ba ñu ñu tël cin li teg mhm. suñ demee nag ba vingt heures trente vingt heures ci cin daan ëpp jot cin daan gën a gën a ñàkk jot waaw nga xam ne cin bu dismo nii bul amul woon Sénégal waaw bu demee ba cin yëpp disponible Macky Sall war naa yëg ne. yàq na dëkk waaw parce que cin ak bool ak kuddu ah. cin waar. Ah. ak ak marmet ak falaat ñoo doon wax ak Macky sàll biig mm-hmm. te yooyu nag. maanaam bu ñu waxee rek nag wax jeex na. ndax moo mm-hmm. moo yuusu Ndour ay ko xotti saako ceeb lan yoroon. waaw naan dara nekkul ci saako yi. saako ceeb nag am na ñu yor kër te amuñu ko. waaye cin mu defut dara moom. Mm-hmm. loolu moom àgguñu fa woon cin yëpp cin am cin cin lu disponible mësta am ci réew ah, fii na nag cin yëpp a disponible boo demee sàkkara kër gii waaw la muy rëy rëy rëy ñaari cin a fay tàkk mooy borom cere jeeg borom laax bi bu noppee cin yëpp a disponible kenn <laughs> fii nag bu Sonko ne woon jël leen pod yi ngeen fëgg ko ah. kenn du tëgg ndax pod yi dañoo jàpp ah. heure boobu ko a yor ma sa pod def ci caagri wala laax <laughs> waaw <laughs> di dañoo jàpp body yaa jàpp mais fii ne ci <laughs> fii moom jàppati ci moom dara nekku ci bu la waxee génnal football waaw dégg nga maanaam loolu moo nekk Sénégal <laughs> boo xoolee ca gannaaw maa ngi tooñ seexu naa léegi bi ñuy ndékki ma ne ko seexu naa bu njëkk ca gannaaw tuuti maanaam mayka yi dañoo yëgoon ne sénégalais yi duñ lekk ñu ñëw hmm. wut ay mayka xam nga hmm. mayka sax aw sant la waa waa Tombouctou yooyu ñoo ñëw fii sant mayka kenn ku ne tijj ay tànganaa hmm. bu njëkk lekku baaroo la la woon ak lekku lekku kii waaye léegi del xool ran mayka yi da ngay seen ab borom moom ran sax waaw maanaam ku gaare xool geesu gees kay maanaam jànq jànq ñi di tubaab tubaab loolu lépp boo demee ci mayka yi fekk la waaw non léegi nuyoo bi laa wàcc parce que bu njëkk ba patron yi ñoo daan maanaam néew nga daan dugg ci may waaw patron bu la gën a fort mhm. maanaam bu dee ndox yi seer waaw transport bi seer mhm. pare euh, ëf mhm. daanaka mm, nit ñi lañ daan am la ñuy am te loolu mënatuñ caa dund waaw loolu moo indi suñ nee wax leen ak Macky Sall ñëpp génn wax li ci desit waaw mooy yàlla suñ borom muy mën nañ ko cee gis. Hmm. barki démb daa jëli barrière barrière kër Ousmane Sonko gee barricatire lañ ngeen koy wax xaw ma. teg fay policier na bu fu kenn jaar. Hmm. Sonko bëgg a génn ñu ne barricatire kër gi. Hmm. parce ci doole la ko tegoon. démb daa gaaw yónnee camion abbu barrière yi yóbbuwaat ko buntu këram barricatire boppam pour bañ ko dugg néegam di ko fëggal looloo yàlla. waaw démb boppam la ah, barricatire est-ce que du même barrière yi dégg naa da koo yónnee gaaw leen dem àbbal ma Sonko barrière am la parce booy sama biir bu bàyyi woon booy biir néegam la ñuy dugg dóor fay. bool bool waaw. mu gaaw jël barricatures yi barrière boppam. Mm-hmm. les policiers yam tegalul doon mën a jël tegaat ko. tegaat ko nekk ca biir ragal a génn. noonu dong la àdduna àdduna demee nag maanaam loo loo àdduna lépp balub teng si la boo sànni mu jël si waat noonu la affaire bi demee mm-hmm. mais en tout am démb ku ko yaakaar ne dégg naa nag ñuy saboté naan am po la waaw ñuy wax noonu ku yaakaar ne nit mm-hmm. ko bu suba waaw waaw loolu rek laa lay tontu loolay eh, mm-hmm. yow toogal nga santaaneem ruube ba xam danañ la ko defal affaire bi du ruube du dara message la ndax vingt heures cinquante déggoo ko tëgg baal déedéet dégg nga. vingt heures dix neuf heures cinquante. déggoo ko tëggu bool. waaw dix neuf heures pile man ci mbedd mi la ma fekk ma koy dégg ma may xool. Mm-hmm. di dix neuf heures vingt heures pile. waaw da yi naan rëng rëng rëng rëng rëng rëng. waaw gars yi respecté nañu heure bi war naa xam ne rëng-rëng biig jii. war naa yëg ne maanaam transiment yu bëri yooyu indi luñ ko dara. man xam naa transiment boo xam ne moo jabar ji. jabar ji da ko ne man damay tëgg fii mu ne ko non boo ko fi tëggee mu ne ko danaa ko tëgg. dégg <laughs> mu ne ko léegi nag mu dem ba am affaire bi jaaxal ko mu ne ko léegi daal damaa bëgg nga wormaal ma ndax koñ bi mënu ma fee di ah, wooteel Macky Sall ñiy tëgg ay bool sama kër <laughs> loolu fetu mu ne ko kon danga may bàyyi maa bon beeg sama ñaari doom nu dem eh, sama kër yaay tëgg bu noppee dellusi mu nangu damaa xalaat nag ma ne bi ma ko bi ma ko soxna si waxee ma ne ay waay ku mënta ko ku mënta ku dem ca Macky mu mënoo yóbbaale sa jabar ba noppi naan yóbbu naa waa koñ ba xam nga ne yaa ngi naxaate waaw. jërëjëf Cheikh Bara macha allah ca nga xamante ni bii mooy tëgg mi nga xamante ni bii démb toj na dëkk bi rong-rong goo xamante ni bii amul àpp nga xamante ni képp ku doon nelaw yeewul leen dikk leen seetaan Cheikh ginnaaw bi ñu jógee ci naan ay day umaateeg yooyu. waaw parce que am na ñuy wax. loolu rawatina Gaston Mbengue moom laaj démb moom sax dafa jot ma ne ko um. kum ma ne ko kum fekk nga umu lay um. waaw waaw Gaston dafa ko um parce que làmbam yi doxatut. ku umu ba sax nag ube ube <laughs> nga ba noppi yéen ngay daw um. <laughs> waaw wax nga dëgg nag katal nag day reye. <laughs> waaye ca kam jublu lay rey. waaw maanaam bu amee lu ci bonit. waaw xol yëpp ci Macky Sall lañ jëmale woon ak gouvernement bi. waaw. waaw mm. ñun moom bu dee daa am gaaf gu ci nekk ak lu ci mën a nekk mm. lépp lu ci mën a nekk rek waaw ma nga ca waaye ga jëmale nañ ko ci suñ gouvernement yi mm. bu dee day umee na leen um. waaw waaw bu dee day wàccee na leen wàccee bu dee day dàqee na leen dàq ñun daal ñun ñu koy def. waaw suñ xoolee ci Macky Sall ak ñi ko topp ak justice bi dëgg dëgg la voilà fetal nag dana rayee de. waaw waaye ki mu jublu lay rey. ki mu koy tëgg nag Macky lañ ci jublu ñun. d' accord waaw parce que Gaston mi koy wax noonu xam nga làmbam yi doxatut kii bi vraiment umu na. loolu hmm. xam naa moo tax mu naan day. moom nag danaa la wax dara. bis bu nee day umaatee. <laughs> Ah. bu subaa mbëri danañ dajul tëggal koy bool de bay ba mu <laughs> moom moom bu gisee bay moom bañ ko wax kenn. jaajëf Cheikh Bara macha allah Cheikh Bara marche bi nga xamante ne bii nag parce que wax nga sànq sax ba tudd Ousmane Sonko. ginnaaw bi nga xamante ne bi encadré nañ kër gaak yooyu ak li nga xam ne xew na loolu yëpp nga xamante ne bi tamit xew na ci penc bi nga gis ni ñoom Déthié Fall ak yi nga xamante ne bi yëpp xew maanaam daal marche bi nga xamante ne bi échoué noo jàngalee eh, ni nga xam ne bi gaa yi nee nañ eh, nañu bëggoon a def maanaam pour yegg bi yoon gaa yi ñu ngi fëgg seen dënd naan état bi réussir naak et cetera noo gisee marche bi nga xam ne moo waaw marche bi hmm. euh, euh, am na waaye damay Ousmane Sonko dafa nekkoon benn tomb tomb. benn tomb tomb bu doon bu doon bu doon bu doon dominer Macky Sall. Mhm. maanaam mentalement waaw. ñëw di ko dominer parolement ah? waaw boobu nag sama français bu ko kenn sàcc parolement la ko doon dominer bu waxee rek dëkk bi yëngut parolement waaw mentalement la ko doon dominer ba mu yàgg mu koy dominer parolement waaw léegi nag daal Sonko day bëgg a jógee ci parolement waaw maanaam nag léegi di ko dominer nag physiquement physiquement waaw ah. mooy soo su wootee mars maanaam bu defee action rek. waaw day jeexital ci sénégalais yëpp ba ci tëggum démb mi. Mm-hmm. bu wootee mars boo ko boo ko validé. waaw yeeg jaaykatu cere yeeg ñëpp na tekk dem mars ji. waaw boo ko invalidé. Mm-hmm. dëkk bi saxaar si sonal la. maanaam mm-hmm. boo ko wali boo ko boo ko validé mbooloo mi sonal la boo ko invalidé saxaar si sonal la. waaw parce que li koy firndeel mooy keroog bi ñuy def mars ay ajjuma bi jàll. Macky Sall mi ngi amoon rendez-vous ak waa Ranérou ak waa. Euh, nu mu tuddati dagana. Mhm. la waroon a dajeel. waaw bi ñu dajee bi ñu waree daje ñu ne mat ñoom Sonko ne dañuy marche force Macky Sall daa xëy dem génn dakaar bàyyee ko ñoom Sonko dem Papangin dalal fa ñooña loolu nag daa am li muy wane. mooy Macky Sall bu fekkente ne ñoom. am nañu force de l'ordre. waaw ñoom li mu wax rek. waaw Sonko sonal la Macky Sall. dafa dem dafa dem kii non xam nga Macky Sall. <laughs> du jeex. Macky Sall fu mu fu mu fu mu fu Sonko ne damay mars moo xam moo xam moo xam bu bu bu bu bu bu bu bu buñ validé ak in buñ buñ invalidé. waaw nawoo Macron ne ko fekk ma ci Sénégal Dakar ci bis booba ca heure booba ñemewu ko. xalaatu ko ñemewu te woo kenn nit ci benn comme wormaal ci bis boo xam ne opposition bi dañ dañuy mars mu ne du fi amee ba pare bëgg a defi activité am. moom kay réew mi daa mel ne. léegi boo bu ko gaa yi soxlaa moom dañ koy bàyyee bañ noppi ci delloo ko. Hmm. waaw liy firnde nag mooy na ko gaa yi soxla mu soxla ko ba xam la mu bëgg dana dox. waaw waaw daanaka daal moom. Uh-huh. ajjuma ji bu gaa yi nee dañoo soxla réew mi. waaw moom ak lu mën a xew dana leen ko bàyyee bàyyee leen policiers yeeg yëpp. Uh-huh. ca opposition ba leen jëm. Hmm. moo xam dañuy dóorante moo xam dañuy defante dara waaye dana dana leen ko bàyyee aw ganam xaar ay soxlaam xaar ay audience am xaar ba gaa yi pare joxaat ko réew mi Mm-hmm. fii ne moom bu ko gaa yi soxlawu rek la yor réew mooy saa yu ko gaa yi soxlaa nangu ko mm-hmm. foofu la yëfi toll nag foofu la yëfi toll waaw léegi nag loolu loolu lay wane mars mm-hmm. bi jàll nag waaw dafa am lu am mooy euh, dafa am loo xam ne injustice la injustice waaw mm. doomu aadama nit mënta taxaw aaya la nga circuler te keroog aaye wu ñu woon mars mais circuler lañ doon aaye. waaw parce que Sonko dañoo ñëw ne ko doo circuler. waaw ñëw ne Barth doo circuler. Mhm. yeneen opposant yi nga xam ne circuler nañ tamit. Mhm. dañ leen a jàpp. Mhm. parce que man bi ma déggee ñu ne jàpp nañu ay Aïdara. am naa sama xarit boo xam ne xabbaan la tudd ma nga dëkk Paris. dama ko doon bëgg woone ko bul génn. parce que moom day faral di sol euh, tisetu Ousmane Sonko. waaw ma ne ko boo génnee. tem ñu jàpp la ne la da ngay ñëw ci marché bi. ma nga Paris Paris la nekk waaw. Ah. ma ne ko damay bañ ñu jàpp la ne da bëgg a participer ci marche bi ah. parce que man damaa xam ne benn waay bu nekk géejawaay waaw place de l'obélisque la ñu wootee marche bi mu nekk hmm. géejawaay génn di doxo doxakub tànkam waaw nga jàpp ko ne koy yaa ci marche bi hmm. kooku war ngaa mën a jàpp gone gu nekk France ca 18eem hmm. ne ko yaa ngi ci marche bi dama da ngaa participer ci marche bu dee loolu Ahmed Aïdara ci marche bi la participer rek waa 18 ak waa Beraleng a ngi woon parce que loolu moom loolu lay nuróol loolu lay bu fekkoon daa yor oto wala mu wala mu def lenn luy wane ne daa jëm ci marche. Mhm. mais koo xam ne mbedd la yor di dox akub tànkam ca géejawaay diggante géejawaay ak l'obélisque. waaw nga xam ne daanaka mën nga fee jël vol. Mhm. nga ñëw taxaw naan ko géejawaay ak <laughs> l'obélisque bu bu amee aéroport de nga jël fi vol boo moytuwul. waaw waaw léegi nag nga nga mën a taxaw daan ne kii ci marché bi laa ko jàppee. waaw loolu du waxi dara. waaw léegi nag noonu la noonu la demee. bu ko mhm. defee. Euh, maintien de l'ordre yi tamit. maanaam presse bi moom wax nañ leen ne soit que ay rebelle soit que ay assassin ngeen. ñan waaw so ñoom ñoom euh, police ak gendarmerie. ah presse bee ko wax de. Hmm. parce que ñoom dañoo ñëw doon def maintien de l'ordre mooy di jéem a aar Sénégalais yi ak sécuriser leen. waaw bañ fay jógee rey nañ ñett. presse bi ne am nañ ndam. Hmm. waaw ab rebelle nag moo jëm ca moo dem yori fetalam dem ca nit ña rey leen del si am ndam. Hmm. baa koy doon xare ji. waaye koo xam ne nii moom da nga ne da nga doon aari nit ñi. sécuriser leen. nga rey ci ñett del si ànd ak ndam. loolu du lu kenn mën a wax. te marche bi jàll dafa wane ne. incompétent tamit daf cee am. parce que marche boo xam ne 15 heures la tàmbali. Hmm. jeex 20 heures nga rey ci maanaam diggante juróomi waxtu. nga man cee rey ñetti bakkani doomu aadama. waaw kooku defuñu seen liggéey nañ ko war a defee ndax mois de mars. Sénégal gépp a marché woon di di marche te marche bi duré woon na 7 jours ba 8 jours. waaw personnes lañ ci rey su fekkente ne nag marche bi 4 heures de temps la duré ñu rey ci 3 personnes kon day wane ne ñoom. Hmm. Euh, tam saa bu takk der rayee manque effectif la manque effectif waaw buñ matee sëkk gis nga sénégalais yi buñ génnee mat sëkk bari mhm. kenn du leen rey takk der bu ñu génnee mat sëkk duñ rey kenn mhm. dañoo matut maanaam buñ buñ sonnee nag waaw dañuy def loo xam ne ni waruñu ko woon def dañuy def loolu moo indi lii am keroog mais mhm. di li di di ko ñaawlu parce que amul benn luwaa ci Sénégal waaw bu mën a may doomu aadama muy xañ moroomu doomu aadama mu génn bi ci des nag mooy jàpp gi ñu jàpp ñoom Déthié Fall ñoom. Euh, Ahmed Aïdara Ahmed Aïdara mhm. ak ñoom Guy Marius Sagna. waaw loolu nag nama ma ñëpp déglu ma leeral. parce que nekkul lu dul. Mhm. maanaam continuité ci xeex bi Macky Sall di xeex Yewwi Askan Wi. Mhm. dafa xeex liste nationale bi. waaw ba mu jeex. mooy tëj na euh, yàq dàq na Sonko ci élection yi dàq Malick Gakou dàq Déthié Fall dàq ma euh, nu mu tuddati Aïda Mbodj. dàq ñëpp may mun a busa euh, soxna si madame Fall mi nekk Pastef ñun ñëpp ay Bassirou Diomaye Faye ñi baaxoon ci opposition bi ñëpp mu éliminé leen mm-hmm. ak ñoom euh, euh, Cheikh Bamba Dièye ak ñëpp rek Moussa Tine ak ñëpp léegi nag mu des nag département par département Macky Sall nag décrété xeex boo xam ne ci département par département la jëm mm. Cheikh Abdou Bara Dolly mooy tête de liste département Touba Ahmed Aydara mooy tête de liste département Guédiawaye. Mhm. Guy Marius Sagna mooy tête de liste département Casamance bi. Mhm. Euh, Mame Diarra Fam mooy deuxième tête de liste département Pikine. Mhm. ak Déthié Fall moo nekkoon seen cor moo nekk mandataire euh, coalition bi. waaw donc kon ñii ñëpp bu fekkente ne da nga leen a jàppandoo. lii bu dul xeex ab liste lan la. Ah, doy xeex maanaam lii bu dul xeex ab liste lan la tudd. mënta tudd lenn lu xotti liste yi xeex leen. Mm, li am solo mooy. Mm. Euh, jàpp nañ fi Idrissa Seck le 19 avril. waaw bu yëggut bi Barthélémy jaas di wuy ji. Mm-hmm. Euh, ci mois de janvier bi jàll. Mm-hmm. jàpp nañ Sonko jàpp Khalifa Sall jàpp Malick Gakou te teewut dañ leen da bàyyi ca saasa. waaw homme politique bu ne jàpp nañ la fi bu yeggut ba ci bi ñuy marshal Cheikh Omar Diagne mii. Karim Xorom Xàq ak ñoom Dàmbooj def nañ fi marche boo xam ne dañ leen ko interdit dañ leen a jàpp ñoom dañ ne dañ leen a yóbbu ba booree bari ñu ñu sànni leen fa mais kenn nekku fa di leen àtte mhm. fan nga mas a gisee ay homme politique yu woote am marche dong dong participer ci marche képp mhm. te sax demuñu fañ doon marché nga jàpp leen ne danga leen di yóbbu jugement di leen jugé waaw loolu mhm. période bii la mooy élection yi ñu jëm yitteem mooy jàpp leen pour galgal leen ba xaw leen a yàqal ci élection yi ñu jëm loolu mooy yitteem loolu nag dafa am seen saa njóogu loo xamante ni dafa ma naqari trop mooy Macky Sall. waaw su ma nee su ma nee jàpp ay nit. waaw di leen siiseloo ko tëjlu. requête boobu maître Abdoulaye Tall doon doon dugal. pour pour affaire kii bi rejeté nañ ko. rejeté nañ ko. gis nga keroog démb bi ñu ne dañuy siisee ñoom ñoom Déthié Fall dama ne dama ne sama soxna. Mhm. kenn du leen siise tey dañ leen aj mhm. parce que xam naa ne Macky moo leen tëjlu te kontaan agut. Mhm. yaa ngi dégg te ma ne ko bu ñu leen ajee. balaa balaa mars ñum sonko bi dañu bàyyi mars bi jege ñu bàyyi leen pour wane ne léegi gis ngeen jàmm am na bàyyi nañ ñu doon jàpp ba pare ñu ngi nii di mars dañoo bëgg dañoo dañoo dañoo dañoo bëggul jàmm hmm. technique boobu la gis nga dañoo xëy ñu ne non amuñu saal aj nañ ko léegi la 27 ba ñu leen bàyyee la 28 la 29 ñu ne ku ku mars ñu ñu bëgguñu jàmm hmm. technique boobu la damay toog sax man di leen liir di leen gis nii hmm. gis nga waan Sénégal dafa am loo xam ne dañ ko war a waxtaane tamit dëgg Sénégal koo wax mu ne dëgg amu fi yoon yoon amu fi. Mhm. waaye li ñu xañ yoon kenn du ko wax. mooy parce ñëpp ko ragal a wax. Mhm. gis nga euh, boo demoon tey jii Donald Trump. bi muy bi mu ñàkkee toog maison balance boobu ne moom du génn pa du génn du génn pale bi. waaw wax wax ñi ne du génn bu amoon juge bu bon. Mhm. da koy fay ay milliards. mu ne ko waaw am na article sax bu wax ne nangam ak nangam toogal. su ko defee mu nekk loo xamante ne day dagan. boo demee fii Macron barki démb gagné dem na élection législative euh, présidentielle premier tour deuxième tour. waaw xam na ne Mélenchon mii sonal na ko ta bu ñu demee élection législative dina ko dina demee nii mu demee. mu gis ko xam ko. Mhm. su fekkonte ne fii Macron gis na Francis bu bon da koy fay mu fexe ba ne ko Mélenchon yow kat saw kayit baaxut wala da ngaa doublé wala da ngaa wala da ngaa wax ba tëj ko ba téye ko. ba du mhm. bokk. Mhm. xel xalaatut maanaam mag maanaam nit ku bëgg a bokk ci élection France. waaw yoon ñu naan la fii la dugg ak fii la jaar dégg nga. Mhm. bi mu demee ba bañ bañ gañe ko. élection yi jàll nga xam ne dafa am majorité relative. su fekkoon ne juge bu bon am na fa. da koy da koy fay na ko essentiellement notes yi wala essentiel PV yi jóge ci bureau bureau de vote yi. Mhm. waaye dafa xool France ba xam ne France amul juge bu bon looloo tax Macron mënu ko. Mhm. fii ci senegal nag maanaam Macky Sall ku mu bëgg a tëj. waaw da lay tëj. ku mu bëgg a tijji da lay tijji te Macky Sall mënta tëjum picc mënta tëjum picc. Ah. bu dul dafa ger ab siis teg ko ci wetam di ko di ko fay mu koy defal li mu bëgg. Hmm. looloo tax Macky Sall mën a tëj ñi muy tëj di leen tijji te sénégalais yi dem nañ ba xamal ko seen bopp ba ci suñ kilifa diine yi. waaw Macky Sall ku jàpp maanaam dañuy romb siis bi nii ne ko yow doo ci dara. Hmm. dañ laa jënd fay la képp ak al toppe nga. Hmm. dem ca Macky Sall daan ko bàyyi ko waay. bu Macky waa dinaa ko bàyyi après daal di bi bàyyi kon loolu dafay wane ne. Sénégal maanaam juge yi ak procureur yeeg magistrat yi ñoo yàq réew mi. ñoo yàq réew mi ñoo ko yàq. Hmm? waaw juge ñoo ko yàq. Hmm. parce que gis nga Sénégal dañu man damay faral di théorie ne. waaw boo baaxee te nekk ci dëkk bu justice ba baaxut. Hmm. sag baax gi du baax. parce que justice ba dana la bonaaleel. soo bonee. bonal ba gën a bon Macron euh, Donald Trump. ñoo ngi Macky Sall dong nga yem ay politiciens lañ rek. waaw Macky nekk ci biir juge yu bon mën a appliquer li muy def. Mhm. ñoom Macron nekk ci juge yu baax mënuñoo appliquer seenu mbon. Mhm. dégg nga. waaw kon nag ñun dëgg dëgg dëgg dëgg problème bi. Mhm. du Antoine Félix Ndione du kenn magistrature yii la. ah te magistrat yi. waaw su fekkoon ne député dañoo tooñ. dañ naan ceel bu élection yi jotee ñu folli la. dégg nga suñ gisee ku baax ñu fal kooka président bu la fiy fontoo. 2024 bu la neexee nga folli ko. Mhm. falaat keneen. waaw am nañ am nañ ci po am nañ am nañ yoon ci ñoom. Mhm. magistrat nag ak juge yi fi nekk. waaw magistrature bi ñun mënuñu leen a folli. waaw mënuñu leen a fal. Mhm. amoo foo mën a jaar ba wax ak ñoom. waaw liñ lay def amul contre buñ la ci rendre. fexe nañ ba duñ dugg kaso. fexe nañ ba kenn du leen pelent. maanaam ba pare toujours ñi ngi jàpp dëkk bi di ko jalgati. fi mu ne bëri mbirum Adji Sarr ak Sonko. waaw bu fi juge bu normal bu fekkoon ne juge bu baax am na Sénégal. waaw benn bu Adji Sarr ñëwee da ko naan hey waxoo dëgg demal fooy. Mhm. voilà bu Sonko naan non dañ may kompaloo nangam ñu ne ko demal boo demee juge baa nga fa boo demee lu mu wax ñu dégg. Mhm. kon kon kenn du dee. waaye xam guñ xam ne juge bu baax amu fi. looloo tax nit ñi gënal seen bopp di faj ba dee ba di ba quatorze dee ci. Mhm. barki démb lii fi am justice juge bu bon a ko def. lan kon lii mooy ñett ñii dee. barki démb. ah Sénégal. bu fekkonte ne juge dama ne la mm. Sénégal ñun justice dañoo yëgoon ne du ñuy xar du ñuy béy mm-hmm. dem dajaloo tëgg ay constitution ngir bañ a nekk xar bañ a nekk béy waaw doo nekk ay doomu aadama mm-hmm. bi ñu leen falee nag ñoom dañoo dem ba jàppee ñu ay xar jàppee ñu ay béy parce que bu mm-hmm. quatorze ma nee dee Sénégal daaw tey jii trois fekk si waat leen ba quatre muy dix-sept personnes dix-huit personnes yu dee amul jugement amul ku ñu jàpp amul ku ñuy àtte amul ku ñuy joxañ léegi daal Sénégal da ngay dox dox ñu fetal la nga daanu dee ñu gas suul comme aw béy wu dee waaw su fekkee nag léegi noonu ay béy ñun ñun wu wuñ ay am ay juge ak magistrat il faut kon ñu xam ne ñoom nañ nekk ay nit jàppe ñuy nit wala ñun am na lu ma xalaat man hmm. waaw waaw am na lu ma xalaat de loo démb bi ñuy tëgg bool yi man xalaat naa waaw gis nga magistrat yi man man damaa bëgg a woote ab ab ab ab bëccëgum ñaan yàlla bëccëgu ñaan yàlla ci ñoom pour ñaan yàlla kay mooy joxe tabat yaddaa yi maanixo yi musilu yi baxbaxaa yi warada yi fa boxital si kafara yi jalaal yi def ci dog yu foor yoo xam ne xam nga lu ñu ciy ñaan yàlla uh-huh. bépp gis bu nekk Sénégal gii uh-huh. di lekkub ger di lekkum neexal di làqatu ci Macky Sall di a seere carrière bay jël li askan wi moom nga di ko delloowaat wala daal gis boo xam ne la nga waatoon uh-huh. ci ni ko statut magistrature jàngalee ca article neuf booy dugg waat ga nga waat article dix ñu bind ko ci PV boole ko ci say këyit nga xam ne yaa ko waat waaw yaa wat ne du ma def mukk loo xam ne dana wute constitution bi lépp lu may def sama intime confusion laay def. kenn du ma jënd kenn du ma ger yaa ko waat de. Mhm. ñu bind ko ci PV. Mhm. dugal ko ci sa sa sa sa sa dossier. képp koo xam ne am magistrat nga fii ci réew mi te la nga waatoon nekkatoo ca. waaw yàlla na la yàlla xalak xalak alakaanay xol alkaanay xel alkaanay yaram. waaw waaw bu dee dangay dem ci Macky Sall mu lay joxub xaalis. waaw ngir moo tax ngay jaay suñu askan alal jooju yàlla na yàlla na ci sa càngaay bokk. dañ ko ñaan yàlla oui bu fekkee Macky Sall lay joxub xaalis nga di ko denc naan boo lëggee samay doom lekk ko bu ko bu njaboot gi tekk yàlla boo ko fekkee hmm? waaw waaw siis bu bon loolu lañ leen war a ñaanal nag hmm? parce que billaahi saa njóogu bu siis yëpp jaareew yoon waaw Macky Sall la gën a jub aw ab reegal hmm? fan lay jaar ba jalgati waaw dëgg la ah bu fekkente ne siis yi dañuy dem ay carrière la ñuy sees bëgg a dem ay ay ay ay ay ay ay ay ay cour suprême ak ay conseil concerné loolu lañ bëgg moo tax ñu dem ne yàcc yàccaaral yow defe nga ne article 22 lim lim wax. mooy euh, ab magistrat wërta politique. même bu fekkoonte ne dafa dem ba génn ci magistrature bi sax amul droit politique Antoine Félix Ndione lim nekkee ci réew mi du politique. ah, ah? doy na waar bërki démb bi bi mu pertee fii meeru meeru meeru meeru xombal gi. Hmm. kan moo fa nekkoon ah politique la def bay naaw. waaw ah? defi miti nag lu ne mu dugg ci tey jii te loolu loolu yoon da koo tere. Mm-hmm. dégg nga. il faut il faut ñun. waaw maanaam magistrat yi bu doon soxoruñ nag. Mm-hmm. soxoruñ bënuñu bu doon tane lu ñuy fa lu ñuy wate la. ñu bàyyi ba wate yee ñëw. Mm-hmm. bu doon ku ñuy dàq la ñu dàq leen. yaa may dégg. bu doon lu ñuy dàq ñu dàq leen bu doon lu ñuy wate ñu wate ko. waaw bu doon luñ mën a bindi leetar ñu defu PV dem yóbbul leen ko mais ñun dañ leen a fal. ñu nekk fi di taal réew mi di rey askan wi ba pare bu ñu reyee dara duñ ci fekk mhm. di lekkub ger di lekkub neexal hmm? ñi ko ciy def waaw ñi koy def ñi ko ciy def waaw yàlla na leen dañuy man de danaa ko joxe xaw ma nit ñi danañ ma gëm niñ gëmee sonkoom dégg waaye danaa joxe dog ñu toog ci génn bëccëgug ajjuma ñaan ci suñ borom magistrat bu fi nekk waaw te jub te nekk ca la nga waatoon yàlla na la yàlla dëgëral yàlla na hmm? la yàlla may jàmm la ngay jëlee ci askan wi yàlla yàlla yàlla barkeel ko. waaye magistrat bu génn ca la nga waatoon di lekk ger di lekkum neexal di jël ay décision politique. Mhm. yàlla na la yàlla xalak alak waaw loo amee ci li ngay client. Mhm. boo ko jëndee oto yàlla na daanu boo ko takkee jabar yàlla boo ci man dara. barke seexul xarit boo ci man dara billaahi wallaahi ndax alal loolu dong lañ koy doyee gis nga Sa Ndiogou dañu ànd dëgg waaw dafa am loo xam ne Sénégal koo wax ma ne ñemewuma ko wax man de danaa ko wax dëkk mm. bii waaw justice bi day politique. loolu mooy dëgg. décision bii CEDEAO ñu jël léegi. waaw maanaam benn yoon boo xam ne magistrature bi dara dana fa jóge lu enrancé wut APR doo ko gis. Hmm. buñ demee ba nangu am naan liste suppléant ak liste proportionnel. Hmm. di ko valider. waaw xam nga ne loolu kenn loolu loolu maanaam dem mitinu APR sax moo ko gën a politique. waaw waaw sol marron bees dem mitin looloo ko gën a politique ñoom dañoo politique. Hmm. ñun nag mënuñu ci yéen dara. waaw. waaw beere mënuñu ko ci yéen. waaye nag ñun menacé wuñ kenn dewuñu ko kenn di ko dóor waxuma loolu karuñu otob kenn waxuñ ma loolu saagawuñ kenn waxuñu loolu waaye yàlla nag moom kenn moomu kenn mënuñoo tee ñaan siis yu bon yi nekk ci réew mii suñu borom alag leen waxuma al ay alag yii de ban façon yàlla moo leen xàmmee xam leen xam ñi ci jub ak ñi yàlla xàmmee na leen xam na leen xam na ñi ci mm-hmm. jub ak ñi jubut mm-hmm. ñi ci jub yàlla na leen yàlla dëgëral waaye ñi ci jubati yàlla na leen yàlla teg alkanay yaram ak alkanay xol ak alkanay jëmm joo xam ne maanaam da leen di topp ba seen biir bàmmeel maa ngi ñaan ci doole sëñ Tuubaa te ko def ak bëccëg lu àjjuma suba ji sax di jee parce que lii dafa yomb trop nekk fii sëñ bi signé waaw waat waaw ne am masistaraanga waaw ah mhm. làqatu ci ginnaaw ab état lépp luy rey askan wa ak di delloo gannaaw askan wa bu ñu ko wootee nga ñëw signé leen ko dem toog te ñu hmm? waxee nga naan nga naan ñun ay kilifa lañ dañoo méngoo barke alxuraanul karim bari na fii yoo xamante ne buujumaan yi leen gën téeméeri junni yoon buujumaan ñoo leen gën ci réew mi parce que buujumaan bi ñu hmm? ñàkkee dem na ca mbalit ma di wut mu lekk mais ki nga xam ne daa tiim ñam wu dagan ba noppi préféré lekk mëdd kooku buujumaan la gën a gore billaahi wal kitaab yi am na ñoo xam ne ñu ngi hmm? fii di agressé xaaju salaire xaaju salaire magistrat yi ci jotoon duñ agressé kenn ah, yi ñu ngi jot li ñuy jot ba noppi di agressé loi bi te li ma wax ni kenn du ko dindi. journée ñaan alak. journée ñaan alkanay siis yu bon yi nekk Sénégal. dañ koy def parce que bu tëggum mbool bu demee ba am lu mën a régler. ñaan yàlla am na lu mën a régler. te Sénégal billaahi bu jubee Sénégal jub bu justice bi dëngee. Mm-hmm. na sëñ nekk premier ministre sëñ Mbaye Sy Mansour nekk président kenn mënta doxal réew mi tànk ndax lépp ci justice bi la war. Mm-hmm. voilà leen ñi ci honnête. ñi ci doxal waaye sëñ bi dëkk bi dañ koy fooye noonu li tax ñu war saa njóobu saa njóobu li tax ñu war a dee wax naa mm-hmm. Mm-hmm. xam nga lu tax xam nga lu tax loolu war a am mm-hmm. ma juge boobu honnête lu tax mu war a dee xam wax naa ko waaw ñun ñu ngi ñuy rey waaw décision yi ñuy jël waaw ci suñ kaw dong la jëmaat dëgg la de troisième mandat Wade ab juge ko defoon ñaata nit a dee wallaay ah lépp loo mën a jël ci senegal tey jii ab juge koy def dëgg la siis bi nag li tax askan wi duñ ko wàññiwaale mooy doo ko gis doo ko dégg doo wax ak moom moom daal day ñëw jëlu kayitam ne xoos xoos dellu fa mu nekkoon waaw dégg nga hmm. réew mi tàkk di bay gone yi dee ñiy wax naan Macky Sall Macky Sall Macky Sall ñoom ñu ne xew hmm. man nag waxuma ak Macky Sall waaw juge yu bon yii laqatu ci ginnaawam état di politique. Mhm. billaahi wallaahi man danaa woote bisub ñaan yàlla. bisub ñaan boo xam ne kay moom turi yàlla yu tàng yi woote fitna. fitna ak di mettital mhm. ak jinne yeeg rawaan yu bon yeeg xoddaam yu bon yi. jinne yi bu leen ci boole seen baax. ñëpp a ciy bokk. takkatoo mais ku baax bokkoo ci. man magistrat bu baax bi magistrat bu baax bi euh, kooku euh. kooku mënu koo fay mm-hmm. yàlla na ko yàlla dëgëral mm-hmm. lu mu am yàlla na barkeel yàlla na ko yàlla may jàmm mm-hmm. mais magistrat buy jaay askanam di jël décision yoo xam ne su suñ gone yaa ngi nii di dee ci mbedd mii waaw ah te Sénégal koo seen mu koy tàkk mu koy taal dëkku fi jaajëf Antoine Ndione ñii di taal Antoine Ndione ñii tey nga xam ne coow lépp ci kawam la jóge ñaari doom ña nga bitim réew dëgg la Moussa Fall mii benn doom la am ma nga bitim réew hmm. doo kenn koo xam ne sa doom a ngi taxawaalu ci dëkk ñoo ñoo fi nekk nag di jël ay décision yoo xam ne suñu doom yi di dee ci àll bi ñu mel ne ay béy sëñ bi man loolu dama koy toog ba mu yàgg ma koy jooy nit nan lay deewee amul enquête amul kuñ jàpp amul kuñ ciblé gas daal suul ñëw toogaat naan ku ci dee yaa luy loolu waaw ah, xam loolu kenn mos koo gis doy na waar de ah, fii na nag waa waxatee ñu dagg ah. TikTok naan sëñ bi daa soxor soxoruma de waaw barke Seexul Xadiim Mbàkke maa gën a laabir ñëpp mm-hmm. dama ne mm-hmm. am na loo xam ne dafa yomb waaw ñun danoo demoon danoo demoon ñun demoon jàngi leneen ñoom ñu jàngi leneen lañ man ña ngi koy tappale luñ man ñun nag kenn mënuñoo tee ñaan yàlla moom te danaa ko woote de bi daay wala sëñ daara yëpp nañ ma déglu kañ ngay woote danaa ko woote hmm. sëñ yi nañ ma déglu rek loolu dafay jar dafay ñu def dog yi ba noppi dog que ñun ay wif ko lañuy organiser dog yi kon waaw waaw wif ko kay allahumma allahumma yàlla yow yow mi nga xam ne yaa xàmmee yaa xàmmee say fal di folli waaw tey rey di dundal tey rey di dundal képp koo xam ne dangaa ñëw ci buntu suñu buntu bu buntu buur yii. buntu buur tey ab magistrat bu waatoon ne. Mm-hmm. doo lekkub garab doo lekkub neexal. nga teggi la nga waatoon. waaw di dimbali Macky Sall. Mm-hmm. ci loo ko warta dimbali. Mm-hmm. yàlla na la yàlla xalak loolu moom dañ koy ñaan kenn amu ci garab. jërëjëf Cheikh Bara borom alak nga xam ni fas yéen zizi bu yaboo ngeen moytu. Cheikh Bara balaa muy ñëw ak dog yi dog yi day nekk ay missiles yoo xamante ni bii di nga fi gis gis bu takk jabar du ca man dara jabar ji di ko kii ëpp na dama ne waxuma loolu boo sàccee xaalis waaw waaw takk ci jabar waaw yàlla boo ko yàlla boo ko mën boo ko jariñoo xam loolu day nekk jabar boo ger na daanu boo lekkee eh subhanallah denc ko naan da nga na ko sàngoo ci bàmmeel boo denc boo xaalis nag boo lekkee li ma wax daal leer dama boo lekkee ger waaw denc ko ci sa compte naan samay doom a koy dunde waaw yàlla na yàlla boo fekk macha allah jërëjëf Cheikh Bara borom Zizi kon defe naa ni Zizi nag am na ci xam naa ñi nga xam ne ñël ñi mu wax nag mooy ñi nga xam ni nekkuñu ci li nga xam ni mooy siraatal mustaqim waaye Cheikh Bara nangu na ni am na ñoo xamante ni bii ñu jub lañ ñu baax lañ ñoo xamante ni ña ngay def seen liggéey waaye ña nga xam ni ñooy def naka su dul noonu ñooñ la dog ya di dogal Cheikh Bara temps bi jeex na te tey hmm. xaabaabal nañ hmm. xaabaabal nga Cheikh Bara léegi waaw léegi tool joxe kii bi programme def ajjuma ji suba ñu ngi cité sëñ Mansour termine nii su 48 foofu la ñuy liggéeyee. Euh, fa la ñuy liggéeyee suba siti mm-hmm. hémorroïde asthme jabet yu mel noonu. ak mm-hmm. affaire sangat yooyu yëpp. bu dee samedi dimanche ñu ngi asalem de ginnaaw école Madiaye Sall. Mm-hmm. lundi mooy journée bi ñuy def affaire wu faj rab ci benn fan. képp ku am rab boo ñëwee benn fan insha allahu taala danañ ko faj. danañ ko tàmbalee euh, suba si ba ba ci ngoon gi. Mm-hmm. Euh, booy ñëw da ngay woote bu fekkente ne rab yi dafa lay teree am jëkkër wala mu lay teg ngay daanu ay rab di kiris mm-hmm. wala mu nekk xale bu mu jàpp muy mel na lu lompañ wala mënta wax mm-hmm. wala ngay am soxna doo ci man dara wala mu doo ngay joteeg sa soxna muy tàngal sa xol wala mu tëj sa wërsëg wala muy naqariloo sa xol wala ngay gént di sa yëg yooyu yëpp rek bu mu ci man a doon moom boo ñëwee ci bés bi bu soobee suñ borom dootoo ko gisati incha muy affaire u jinneeg yooyu waaw léegi nag bu dee affaire u mooy biir buy seere di def ngelaw di jooy ballonnement ngay dem toilette air rek génn yax yi di metti articulation yi di metti nga dëkk ci mettitu bopp ak bu rëy góor muy delloo aw raw yi wala doo am appétit jigéen mhm. loolu mooy hémorroïde interne mhm. kooku nag boo ñëwee ci kër gi danañ ko faj mhm. bu dee ku nekk Touba mën ngaa dem ca mm, euh, tëli sëñ euh, tëli wetu kër sëñ Bass Abdou Khadir rek tëli gede bi boo demee foofu am na sama rakk ma nga fa am naa fa cabinet boo demee incha allah danañ la ko traiteel bu dee nekk Dakar nag boo ñëwee Tëngéej ginnaaw euh, maanaam cité sëñ Mansour terminus 48 bi wala wetu kër Pam Ndiaye coppet boo ñëwee foofa rek Euh, ci ajjuma ji suba incha allah ña nga fa yeneen bis yëpp ñu ngi asalem 2 ginnaaw école Madiaye Sall mm-hmm. jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye mm-hmm. voilà jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye borom def gis numéro téléphone bi sa aajo faju ci kàttanu borom bi ajatu béti léngee yaa ngoo d'accord jërëjëf Alaaji Sa Ndiogou Mbengue jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye borom def gis ñu ngi lay nuyu di nuyu bi mu àndal ñoom Baye Mbaye Ibra ak Cheikhouna ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di nuyukat yi nag madame euh, Ndiaye ñoo ngi koy ziar bu baax a baax ay ca ñu daal di dem jëli publicité dellu siwaat jéem nañu laa génn réew mi mënuñu ci yow dara ñu jéem laa nëbb mënuñu ci yow dara léegi nag nee nañu dañu lay toppandoo <laughs> waaye dama leen ne gis